ñu ngi leen di leen ziar yéen ñuy suivre 4appuis yi di leen jaajëfal lu baax te ñu ngi fiy tëngeej seet si fi doomu dàngu fas yéene waxtaan ak moom ci combat bu ñu bëree démb si digganteem ak euh, Jordan wax dëgg yàlla ñu bëri ko ci fulla ba yàlla may ndam euh, doomu dàngu ñu koy félicité di encouragé euh, Jordan def nañ l'essentiel bi mooy bëri nañ ci fulla ba yàlla may ci ndam xañ kële amateur am ci contentement te ñu seet si doomu daanga fas yéene ca waxtaan ak moom mu ñëwaat ci naka la bëree que euh, Jordan activé naka la préparé combat bi dañ koy nuyu bàyyi mu nuyu ñu si taan ñu commencé waxtaan bi donc maa ngi lay ziar bon suñu borom julli si sang di sant suñuy waajur bu baax a baax a baax di ñaanal sama waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ko ñaanal aussi képp ku fa waajuram nekk di ñaanal aussi suñu waajur yi fi des yàlla bàyyi leen fi gudd fan ànd ak wéra ah. hmm. di nuyu vraiment képp kuy bëggee doomu Dangu ah di nuyu lébu yëpp waa waa Tëngéej yëpp ñu ngi leen di nuyu waa Casamance waa Ndayane xam nga. Mhm. waa Mbour ñëpp daal ñëpp. waaw Ngor bàyyi ñu benn dëkk daal. caaro yi ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp. am na solo. Mhm. démb bi nga duggoo ba gis euh, stade bi ni mu feesee. Mhm. ñëpp ñëw wuyu si supporter yëpp ñëw euh, làmb ji fees. lan nga yëg. waaw mais am contentement rek dañ ci am contentement parce que dafa am bés yoo xam ne soo ko bë soo ñëwee si stade bi fekk stade bi fees dell dafay taaral bés eh, te ñun dañuy rêvé si bés yooyu. yow lan lan nga indi woon man hmm. li ma def noonu <laughs> bëre bëre moo ma indi woon te xamoon naa ne bëre bi si suuf lay jeexee. Hmm. waaw xam naa loolu mënu si woon ñàkk. ci hmm. song la doon jeexee. waaw. mais amateur yëpp dañoo xaar parce que am ñu sax ñu waxoon ne ko ak euh, journée bi dem dina bëri kaaw mais gisuñu fa benn kaaw yëpp ci bëri la jeexee. waaw mais lu waral nga def choix boobu wor làmb dafa am wor. Hmm. làmb dafa am wor moom xam naa ne am na lu mu doon liggéey am na lu mu doon wàcc am na lu mu doon xaar si man. Hmm. mais nag li gën a yaax combat mooy li mu doon xaar si man gisu ko. non doon na xaar ma yëkkati sama loxo gauche. Hmm. doon na xaar lu bëree bëri bëri bëri bëri li gën a yàq combat am sax mooy bëri naa ba combat bi sama loxo gauche jugul. waaw te moom doon na xaar loolu waaw. mais ma heure bi ma gis nga xam ne moom nga njëkk a def ci ci biir combat bi. mu mhm. song bi dafa eggul. Mhm. song bi da nga ko yóotu. Mhm. moo waral ma dina ma egg la foo xamante ne ci combat bi. mënoon nga mënoon na nga si ñàkk combat bi. dëgg la waaw non làmb moom dafay am erreur. et aussi dañuy dañuy dañuy accepter euh, erreur. mooy tey jii bi ko songee man bi ma ko songee sentir naa ne man li ma bëggoon ci songa bi aw ma ko. boo xoolee bi ma ko songee sentir ne aw ma ko dama frein taxaw parce que aussi poids lourd la su ma forcé woon rek mënoon naa mënoon naa pëtëx waaw mënoon naa pëtëx mais alhamdulilah comme que def nañ erreur et am nañ ci ndam rek waaw. léegi nag nga bi euh, pas à pas bëree ba ni sud ni ñu bëree rek mooy tey ji moom dafa am stratégie bu mu indi man ma am stratégie bu mu indi mais xamoon naa ne ñaar rek a mënoon nekk. soit que dañuy daje wala man ma daal ci kawam mais man doonu ma ko woon xaar moom bu ñëwoon dañuy daje su ñëwul nag comme li ma wax noonu rek damay damay damay dem mais lépp ci bëre laa koy def lépp boo xoolee dañu léewtoo ma sentir ne bon comme li ma la wax rek xam naa ne kii bokkul ci làmba te man maa ko mën a indiwaat ci làmba ji te dama koy indee ci làmba ji mooy ma jox ko confiance ci biir combat bi te waruma ko woon may confiance ci biir combat bi soo xoolee léewtoon nañ ma léewtoo dox latéral benn pa daw cokkaas ko boo xoolee man dóor yi may dóor sax si loxo bi muy léewtoo sax si laa koy dóor quoi juste pour xool moom lan la indi ndax day indi réplique wala mais bi ma ñëwee gis naa ne indiwul réplique te man bi ma sentir moom moo ngi def réplique réplique am dafa dëggu te man dama doon fo bon moment boobu mais boo xoolee bi ma koy songo moom dóorul sax dama mépp mu mépp moom mbër la moo xam ne kom bi yëpp dama doon ko jàngat amul benn combat bu mu bëre loxoom jug te mébul boo xoolee bi mu mébee avant muy dóor laa daw jël ko mais bi ma ko jëlee aussi gis na ma waaw mais bi ma ko jëlee gis na ma ma sentir ne aussi gis na ma boo xoolee dama bàyyi tànkam. dama bàyyi tànk bi jël sama loxo ëmb ko ko mais bi ma jëlee sama loxo ëmb ko moom dafa ma mbaar bi ma mbaaree aussi tamit foofu jekkatuma ma na man mënu mënatuma fa bëri li may taxaw rek mooy taxaw déglu ko. heureusement sax moom aussi xam nga mu def si ay quelques erreurs technique mooy bi ma dawee jël ko bi ma dabee dafa waroon demee latéral jàllale ma mais malheureusement moom dafa taxaw ci digg bi te xam te te xam naa ne ëpp ma puissance comme li ma doon wax rek ëpp ma puissance wala gënuma liggéey loo xam ne mën na ma imposer force loolu mënu fa woon am man su ma ko imposer wul force de moom moom mënu moo imposer force waaw te làmb nag aussi des fois lenn day am maanaam mbër. nit ñi di seetaan dinañ gis na yow jekkoo ci biir combat bi mais yow mbër mi di nga xam ne yow fi nga àgg nii yow daf lay arrangé lool man loolu dal na ma ci combat bi waaw. kon benn moment supporter benn moment supporter ñoo tiit mais yow fi nga nekk doon sa xel dafa dal. non boo xoolee man ni may bëree du teew ma sax du teew ma li may def yëpp mu ngi mu ngi sama xel waaw li may def yëpp mu ngi sama xel. mais tiitoo benn benn ñor bi mu lay bi mu la eggee foofu. tiit fan barki yàlla yonent bi tiitu ma sax. ñun dañuy nekk entraînement di bëre chaque jour. am na ñu ne peut être Jordan bu nekkoon ci combat bi 100 pour cent ni mu ci war a nekkee doo génn foofu te te jël du la daan foofu. waaw mais làmb noonu la làmb moom noonu la. foofu nga dem trois appui. Mhm. nga def trois appui. mu desale benn appui. Mhm. léegi foofu la naka la affaire bu tourné ba nga ba nga ba nga jugaat ba plaqué ko moom. non boo xoolee combat bi. Euh, moom sax defaloo ma trois defaloo ma trois man maay def trois appui pour éviter quatre appui. soo xoolee saa bu ñu bu ma xëccee dem suuf damay taxaw man maay jekki jékki wàññi si ma benn genou pour bañ a def quatre appuis et am na sax suma benn entraîneur wax dëgg yàlla noonu laa ko sonalee Baye Ma Ndiaye dama yàgg wax combat bi si suuf lay jeexee hmm, ku ma naan bëri ay tijaan fay yëpp danaan ma wax loolu bëreel loolu parce que combat bi mën naa jeex si suuf waaw te loolu feeñ na fa démb. Hmm. feeñ hmm. léegi ñu gis nga nga jóg nga plaqué ko. waaw non boo xoolee comme li ma rek des fois làmb di nga bëri ñu gis ne yow position bi nga nekk baaxul mais yow xam nga fi nga nekk mais xam naa ne man ñi may entraîné del xam naa ne man man du ma def benn action si bëri su ma defee lii mu échec damay jàll feneen te fi may jàll daf lay bett soo xoolee bi ñu jugee man bi may jug xam naa fa fa laa jëm bi ñuy jug xam naa ne dama koy taf te boo xoolee foofu dama ko xaaj foofu njoolaay feeñatu fa doole feeñatu fa soo xoolee boobu dama ko taf sama diggante moom amul sax air air bu si xaj dama ko taf aussi mu doon jéem a botti mais foofu moom waaw dafa doon jéem a te du loolu moo ko di doon génne soo xoolee bi muy booti pied d'appui bi mu teg boobu laa taf ëmb ko weeru ko def ko plaqué mu jaaxaan. après gis nañ mu jug di contesté nee na da nga da nga da nga sa bopp dafa dafa laal ak yooyu. waaw mais loolu moom man moom wax dëgg yàlla du ma ci du ma ci du ci du ci du ma ci sori yaakaar naa ni image yaa ngi fi. Mhm. et aussi moom am lu ko lu ko yoon may. donc loolu moom moom na dem def li mu war a def rek mais yaakaar naa ne bu demee toog këram xoolaat combat bu baax a baax dinañ xam ndax am na bopp bu laal wala bopp bopp laalul waaw. loolu moom du ma face face dégg dégg nañ la nga naan ko doo uniforme jour ba doo ko dara est-ce nga jàppante bi nga jàppante gis nga ne liggéey na. waaw ah, non liggéey non non non non liggéey na liggéey na lax moom moom comme ni nga am na yoo xam ne bataille psychologique dañuy wax nii rek parce que nit moom mënoo jël combat combat seulement combat nga ne nga ne doo liggéey mais man amul benn mbër man suma bopp laa gëm max naa la man damay liggéey loo xam ne tey jii amul benn adversaire bu may dajal bu bu gis li ngay liggéey waaw parce que man li may liggéey lu métti la et lu ma gëm la waaw lu ma lu métti la xamoon naa ne jour yi maanaam ci li ñu ni doon craindre wàllu dooleeg yooyu noonu dara lu may ëppale. mais waa Pikine démb ni ñu nekkee si ginnaawam defaloon pression. waaye ban ban pression. bi ma jëlee jotaan xam naa ne Pikine la dëkk. loolu defuma dara man ma war a bëre ñooñu. Kolim. waa Pikine li ngay wax moo indi woon ak. Euh, non dama ne ñoom Malaw ak dama war a bëree man Pikine kan laa fa war a bëreel. kan nga ko bëgg a bëreel ma lew. Ah, ku moo fa nekk. jeex na daan naa ñooñu ñëpp. koo fi lim daan naa ko ci Pikine. Malaw Seras bëri ngeen. non dama mën a bëreex Malaw. Ah, <laughs> waaw non koo fa lim non ñi ma fa mën a bëreel koo fa lim daan ko. ki fa des kañ ne génn ñu bëre. Pikine déggoo li ma la xanaa ama indi na naaru sogaas ma daan ko. mu indi sox ma duma ko daan ko. mu dem jëli pungal bi jordaan ma duma ko daanaat ko indi ko esaat te ñëpp da leen indi esaat ma duma ko daan moom na fippu na fippu <laughs> non na moom day taxaw si bari rek di wax na fippu bu fi waaw non dégg na bu fippoo xam lu muy saf donc moom na fippu mm-hmm. waaw parce que dugg naa ñoom man ku def vingt et un combat. dix sept victoire quatre défaites. kan moo mën a bañ ci làmb. ñu jox ma jotaat ñëpp na moom man moo gën a diis moo ëpp doole. moo ñëw ma def lépp ci combat bi waaw. yow fa nga nekk sa bët instant bi à dama dugg ci ñoom ñoom ñëpp. parce que tey jii kenn amul kenn ku si mën a teg prétexte. bañ ma ci dara. Eh, keneen ku ko def rek da ngay da da ngay ut lu yomb. Hmm. mais dama ne la muy Ama. di guy gi ñoom ñëpp dama dugg seen biir waaw. dugg seen biir. loolu force la waaw. mais dama gis Alioune Seye 2 mu seen combat bu bu lu moom Alioune Seye 2 ay Moussa Ndoye. waaw non xam am na combat yoo xam ne moom dootuma ko bëre xam nga lu tax dootuma ko bëre combat diw moo man moom dootuma ko bëree quoi. combat waaw fi ma rek combat cam yooyu moom dootuma ko bëre. loolu da ngay jàpp c'est non yow yow comprendre loo sax <laughs> euh, yow comprendre loo li ma lay wax sax mais ñi ngay wax ni yëpp suba suba ngay comprendre wax naa la gis nga man feex deux ans dama war a bokk si ñi di fay ko ay cent millions ci làmb donc du ñu ngay lim nii nii ñoo may téye Moussa Ndoye moom wax dëgg yàlla am ma dara lu may du may lu may du ma waxati sax si moom parce que bokkuñu dégg-dégg quoi Moussa moom bàyyi ko mu toog di taamu adversaire rek mm. ah. parce que bu bëggoon ñu bëri bëri nañ bu yàgg. Mm-hmm. waaw moom nay taamu rek. moom Moussa. na toog di taamu rek Moussa du ma wax si moom dara na toog di taamu rek. Mm-hmm. Jean Zarko la bu lañ ko joxee pare nga bu <laughs> man daal dugg naa ci ñoom te kenn mënu ma ci bañ waaw. gaa yi nag xam nañ lu yi xam nañ lu saf ak lu saful. <laughs> non Zarko laa wax est-ce lu ma ci wax du ma si wax dara. dara ko du ma si wax dara du que parce que démb yaa ngi woon ci stade lam lam fa def. non est-ce que loolu tamit ci nga bàyyi xel ba nga ne dama lay wax leen tey rek démb wax moom ñoo waroon bëre. kan la. ko. waaw. Ah, non maax moom ñoo waroon bëre. grand combat boo demee nga laaj ñi tëgg combat yi. kon lu xew lu xew moom moom moom moom Jordan ma bëgg a bëreex man ma bëgg a bëreex moom loolu la rek. li nga wax noonu laa bëgg nga expliqué wala a ñoo waroon bëree dama laaj promoteur bi loolu kañ leer na. léegi kon kon am na ku ci wala. waaw non dama la bëgg wax rek na man képp kuñ ma wax làmb la rek. Mm-hmm. su ma esaat d'accord rek pare naa pour bëre ak moom. Mm-hmm. Mm-hmm. ok na la. waaw ñu lay jaajëfal. di la encouragé wax dëgg yàlla di di la félicité di encouragé Jordan ah. démb wax dëgg yàlla bëri ngeen fulla te bi ngeen simee ko tamit amateur yi ñëpp gis nañ ne respecté ngeen combat bi mm-hmm. te loolu mooy l'essentiel bi ñu bàyyi la nga tàggoo waaw mais di sant Tëngéej ñëpp ah leen xam nga maasaw coono bu baax a baax ci dérangement beeg yëpp mais ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di maasaw parce que làmb yombul ah surtout làmb bi comme làmb démb bi dafa am tension ah yooyu ñu ngi leen di maasaw bu baax a baax a baax a baax di xam nga maanaam di sant ñëpp suma kilifa yëpp suma kër ndijaay bi moo toog nii am nga Ousmane Ndiaye maam Bokari Samb suma staff ñëpp Baye suma suma xarit bi <laughs> suma da nday jantal maala ah, Messi <laughs> moom suma xarit la gis tey dafa ñëw yendu fi jógee ba Mbour waaw mooy loolu ama fayam Yacine kii aussi suma suma suma kilifa la Mohamed Ba Samba Ndour ah waa Ndaayaan surtout laa lëg Daaru Mbay Idrissa Ndiaye <laughs> moom tamit macha allah xolal ñaanal na ma jox na ma xaalis bu bari waaw wax dëgg yàlla ñaanal na ma jox ma xaalis bu bare bëree bari bari bari tamit xam nga Samba Ndour aussi mention spéciale à à moom suma kër si Baye Ndiaye Aji Malick Ndaanaan suma partenaires yi aussi xam nga ñoom étudiant Ngagne Sène Caaka fay tiijaan Faye xam nga Mamaya Nduumaat ñëpp su ma kër si nekk def sport aussi jël nuyoo bi rek teg si booloo mu joxal ma ko xam nga ñoom Mohamed mi ka grand bi aussi borom saal bi laay moom tamit ku baax waaw njool boxeur ak buri ñooñu tamit mention spéciale ah waaw combat bi daal li ma lay wax rek mention spéciale aussi waa Tëngéej ñëpp spécialement nag fi ma dëkk muy dàngu waaw su ma su ma ki ma doon bëreel combat bi aussi waaw muy Ibou Guèye moom li ma ko mënaloon rek mooy indil ko combat bi mu ngi si ay jafe-jafe nag mais xam naa ne fi mu nekk xolam sedd na suma booy aussi ñëpp Ahmed Guèye aussi Thiandoum Mar Ndiaye Amadou xam nga kii ñoo finance chaque ñu bëri xamuñu ko suma frère bi aussi suma frère bi nga xam ne moo daan ma tugal ci mukaay aussi démb xam naa ne am na lu ko metti muy Boubacar si diggante combat bi dafa defoon bi mu desee deux semaines mu mu am fracture mënul loon toog sama beneen cousin aussi moo toog paate Ndiaye ah. waaw comme ni ma koy waxee rek ñu ngi sant dàngu ñëpp jël nuyoo bi rek teg ko si président Sora Gaye maam ñaaw euh, dàngu famille Pam Maas aussi su ma mag jooju nga xam ne kenn la ci man moom xam na li may wax Pam ngay sant di ko gërëm suma prési ba Gambie président écrit moom Gambie Asgay moom xam naa ne xolam maanaam sedd na lool lool lool aussi ku jàpp si ko combat bi monsieur le maire de la ville Omar Cissé jàpp si bu baax asan Assane Kassé maanaam su ma limee rek dama doo man a matal parce que temps bi du la ko may mais du ñàkk aussi képp ku ñu fàtte rek ay yeneen échéance ñu ñu ñu ñu ñu tudd la ci. waaw mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. macha allah jaajëf Danku jaajëf.